ma lay jiin bismillaay ma dee ci door maam góor gi njaay sëtub maram jiin léegi su ma ñëwee si promoteur yi par rapport ak seen ñëw parce que boo xoolee Gaston production benn moment taxawoon na bi mu dellusiwaat te fisale combat yu bare bare bare bare ñu koy ñaanal wér mais yàlla dogal bi mu wéradee doomam continuer liggéey bi makkan mu mel ni ba Aziz Ndiaye tamit nekkoon na fi benn moment mu reculer mais bi ñu dikkaatee bàyyi Ndiaye moo ñëw ak alburax ak yeneen promoteur yu si dolleku ñoom Mansour Ba fekk fi yeneen jeunes ñoo xam ne ñu ngi fa ñoom Fallou Ndiaye ay Assane Ndiaye ak yeneen ñoom jamaïcain promoteurs yi macha allah te ku ci ne boo xoolee ay combat yu am solo ngay jox amateur yi en prési waaw xam nga Aziz Ndiaye dafa xam làmb Aziz Aziz xam làmb Baye Ndiaye Masata ñooñu dañoo xam làmb wow seen papa la yal na ko yàlla yërëm Baye Ale yal na ko yàlla yërëm Euh, ñoom foofu la woon kon nag tey Aziz buy tëgg làmb wala tey mu dem ba jox Baye Ndiaye muy tëgg làmb xam na làmb bu baax. xam na làmb bu baax a baax. yaa ngi dégg boo ñëwee Gaston yàlla na ko yàlla yëkk teg jàmm man bu dëgg yàlla mënuma ko sax xool parce que dama am cofeel bu maximum chaque jour maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla suñu borom wéral ko euh, Gaston. kenn du wax làmb doo ne Gaston Mbengue ku xam làmb la xam ni muy taxawale kamba mu làmb jaral ko lu nekk nag parce que si boole fulla ak fayda ngëm-ngëm kooku tey bu jëlee doomam makan makan nit gis nañ taxawaayam ñu ngi koy félicité ah, kenn du ne xamul làmb parce que bàyyam xamal na ko parce que ko yàgg yàgg ànd ak sa papa muy tëgg ay làmb nga toog tey ba mu jox la lengee yi kon xam na làmb ñoom Mansour gis nañ combat yi fi tëgg yëpp macha allah ki nga xam ni papam hmm. danaan dimbali ay ay promoteur di dimbali ay mbër tey bu jëlee ànd ak doomam di tëgg làmb xam na làmb père ba maa ngi koy nuyu hmm. parce que yàgg na sonn si sport ah. waaw yàgg na sonn si mbër nga xam ne papa sooy doomam hmm. yaa ngi ni mu doon jàppale Ousa ak ñoom Papa Sow ñëpp xale yu bari mbër yu bëri parcelle ak foofu ak Fass kon nag dañ koy gërëm di ko sant moom gis nañ ne doomam macha allah kii di Fallou Ndiaye kii di Assane Pape Abdou Fall dégg nga Dieye production ñoom Laxat Ndiaye yaa ngay dégg ñoom euh, ku duñ juum gél gi production ah, ñoom ñëpp rek maa ngi nuyu tous les promoteurs mënuma lim ñëpp ñoom ñëpp ay jàmbaar lañu xam man sax du ma ne la promoteur laa andal parce que ñoo ñuy bégal ñun ñu uti seen mooy indi ko si làmb kon ñoom vraiment dañ leen war a gërëm sant leen parce que sans ñoom làmb du am nag san les promoteurs làmb du am mbër yi tamit dañ leen di féliciter parce que sans mbër làmb du am san amateur làmb du am CNG dañ leen di gërëm di leen ziar parce que ñoom ñooy organiser làmb ñooy encadrer làmb muy Bira seen ak tout membre CNG gépp maa ngi leen di nuyu yaa ngi dégg muy ménages yi di nuyu président des ak képp koo xam ne ménager di gërëm ñëpp parce que ñooñu ñooy tax làmb di am kon ñooñu dañu am fu nekk rek ku bàyyi sa moroom kenn kenn ki du dem ñu ñëpp ñoo war a ànd bokk ndey bokk baay yéeneente jàmb pour làmb gën am as waaw. boo amoon lu ñu la ne defar ko ci làmb actuellement nii looy defar yow. xanaa teel a commencé teel a tas. Ah, da nga jàpp ne day guddee. ah waaw nan ngay toogee làmb ba 9h wala 9h30 loolu fu mu am man dama toog làmb ba 9 h dama toog làmb ba 8h et quelque pour lan làmb dafa war a teel a commencé teel a tas loolu moo yàq làmb ci. ci waaw du man rek ah ñu mun ne amateur yu mu neexul bari na waaw parce que du yoon. Mm-hmm. waaw bu duñ toll nii lan moo la ci gën a neex. li ma si gën a neex mooy combat yi am nii. combat taxaw nii. waaw man làmb xam nga lan mooy gën a neex si làmb. ñu ñibbi ñu dem làmb. Mm-hmm. ñëpp ñibbi si jàmm. Mm-hmm. bés boobu neex na ma lool si làmb. Mm-hmm. du ma dégg agression du ma dégg xeex du ma dégg xuloo du ma dégg dara làmb tas ñëpp ñibbi si jàmm. man loolu mooy sama làmb neex na. boo gisee tamit ci làmb mbër yi nga xam dañoo nekk ci mbappat bi ba wane seen bopp ñëw ci dit frappe bi di yéeg ku mel ni rëg-rëg Franc ay Serigne Ndiaye Zambala. ay ordinateur su ma leen dee lim du ma fi jóge bari nañu ah ñu ngi yéeg ñoom ñooñ tamit noo gis seen taxaw war a bëri Serigne Ndiaye dafa war a bëri Serigne Ndiaye daa war a bëri waaw champion la Serigne Ndiaye mbër yi dañ ko war a jël champion la de mbër la ñu may ko sens ci ñi maanaam ñi may may sens Serigne Ndiaye dafa war a bëri ku mbër bu bëree woon moom da ko ragal Serigne Ndiaye waaw champion la dafa war a bëri yow xalaat ne war na mën a bëri ak Serigne Ndiaye mais bëri na Serigne Ndiaye amaane na ay moromam yu war a bëri ak moom Serigne Ndiaye toppoon na franc sax nag bu jël revanche Serigne Ndiaye amul benn mbër bu ko koo xam ne ni tey war na mën na bañ Serigne Ndiaye war a bëri waaw am na mbër yoo boo leen waxee Serigne Ndiaye ñu daw nañ jël avance bëri ci moo gën. da ngaa xalaat di bëreel wala ya Franc di bëreel war a bëreel wala. mais mais mooy yoon war na bëri amul benn mbër bu ko war a bañ. ku ko bañ rek da ko ragal. da ngay wax en tant que amateur wala da ngay wax en tant que doomu Medina. non déedéet man xam nga làmb xamuma ci amateur si si ci supporter wala bëgg mbër man bëgguma benn man man aw ma mbër man làmb mooy sama mbër am dama bëgg a dama koy seetaan ñibbi man aw ma man benn mbër ma seet kër mbër du fa dugg. mbër du dugg déedéet man nekkuma ci aw mbër. da ngaa gis ne daal daa bokk ci. mbër daal bu ñu dajee ñooñu waxtaan nangam ak nangam mais man duma aw ma mbër supporté ma benn mbër yi ñoo la ko gën a xam ma benn mbër de. mais ba naw ko. ba ne daa war a. Serigne Ndiaye champion d'Afrique la jël xam nañ ne arrêt adressé nga toj na ko bëre naa Reug Reug bëre naa Franc bëre naa bër bu ne ah, kooku du champion. wala déet ah dafa war a bëre. et puis bàyyam amateur la woon bàyyam si boppam ñoom làmb rek la ñu xam. Hmm. waaw. mbër la de mbër la de. fan yii de moom combat moom moom amagul combat de. ah waaw il faut nag ñoom Aziz Ndiaye ñoom euh, ñëpp rek promoteur yëpp il faut ñu wax ak moom. Mhm. dañ ko tul combat mbër la. am na fi yeneen xel tamit yu ci yu yoo xam ne amuñu combat Zambala bu mbaaw xam nga ko wala. Zambala bu mbaaw waaw xam naa ko champion mën na bëre am na mbooloo macha allah. yow xanaa moom sa mbër la yow. Samba la. Hmm. lu tax nga laaj loolu. Ah, parce que yaa ngi koy tudd lu wax tudd. Ah, parce que non non maa ngi parce que tudd naa la fi ñu bëree bëree bëri. tudd naa la fi ordinateur. moom rek dong nga fi tudd sa mbër la man xam naa ne sa mbër la amul président <laughs> ah, lu koy def sa xam naa ko dama ko xam ni ma ko laajee rek laa ko xam ma ne dañ bàyyi noonu rek. Zam Zam da di mbër damaa gis na maanaam mu ngi ci. ma waxee Zam laa rek. waaw laa xam ne sa mbër la. waaw xëy na musóor baa tax. xaw naa daal mbër mu saf xorom la mën naa fecc mën naa bëri. ah man da xam na xaw ma na koñ ba loo fa am xaw ma musóor yaay fa nekk xaw ma loo fa am. sa mbër la. waaw gëj naa fa ay weer bu ma jëlul Zambala wala Gris Bordeaux wala Gris xam naa daal sa mbër la xam naa ne bëgg nga ko de. non mën na ko ma yàlla may ko combat. waaw Zambala waaw Zambala. am na solo d'accord ma dee ci góor gi Njaay sëtub Maram Jéen